ma leen ko waxee woon rek euh, sànq rek euh, tey dañoo am gan goo xamante ni daanaka euh, sama sama mbokk la su ma ne sama mboq mooy maanaam ñoo bokk dëkk yi ci Tambacounda la bokk may doomu Tamba donc ma la invité sama xel day dem ci sama yaay ji mama Awa Sy waaye sama xel day dem ci moom Marème si sama xel dee dem ci ñëpp moo xam ne dañuy woy yeelaa rek sama xel day daan si ñoom mama Awa Sy depuis Tamba yaayu ñu ma ma koy ziar bu baax a baax sama yaay jooju ak mama Marème Sy waaye sama xel day dem day sant ci sama yaay ji maman Khady sama kee sama xel dem ci sama papa ji maître Sidiki Kaba ba tax na nag dañ lay dalal rek ni ko Amar waxee sànq rek dama lay daal di dalal rek nga nuyoo ba pare na nga ànd ak ñun nag. Hmm. macha allah. Hmm. jox ko micro bi jox ko micro bi aha Mhm. Mhm. dëkk nekk ci benn région mhm. maa ngi nuyu sama yaay macha maa ngi nuyu samay ñaari waajur yëpp di sakku ñaan tamit ci ñoom olof bi nag leerul il faut tamit ma dellu ci alpulaar bi tuuti waaw waaw waaw dina ma neex torop incha allah ko adi fof miɗa yetti allah ene laaɗo muɗum miɗa yetti jinnaɓam ɓe miɗa yetta nename babam caggal nde kemmi invitation tfm wadde mhm. jakarɗo e fansuji ɗi mhm. wadde jakarɗo e yimɓe ɓe ɗum noon wi on salmini on kala to mbawɗon wonde e wonir mi weltima no fewi mi weltima wax dëgg yàlla berndam buubi heɓ e, e, e, e arduma hande gaay xam dama dégg pël nag <laughs> ku dëkk Tamba di nga dégg pël di nga dégg bambara di nga dégg làkk yu bari mhm. tax ma mi weltima no fewi bani mba garen ha to Tambacounda ɗo min jaara kadi mama hadisamake kanko woni yummu miskineɓe ɗum noon hande dara du yom inchallah Quelle est uddit émission yelaagadoton ko yela seɓɓe o mi ƴetta salminagu mi fawa e juuɗe son excellence monsieur le président de la république makki amadou abdoul boubou suwaɗu makki coumba diara madame hassan sadio lamɗomo sénégal faɗɗani ɗum noon nani dem batti kanam <laughs> machallah mu nuyoo nag cosaanam muy yeelaa li euh, ñuy wax rek ñoom woy dafa am rek fu ñu koy tàmbalee ak fu ñu koy daanalee waaye ku woo tukkuleer nag wax dëgg yàlla woo ko ci yeelaa muy mbuumu mbuumu buur nag duñ ko woyal baadoola déedéet yeelaa buur lañ koy woyal waaye dañ koy woyal as gor dañ koy woyal ku am ku am ku am pas-pas dañ koy woyal ku am jom nga woyee yeelaa mu neex loolu dugg si biir yaram yi père Omar ana beneen mikro bi Abdourahmane mhm. Abdourahmane indi lu beneen micro mhm. nee naa ko mu dugg fu am solo alima mm, mm. ndax nag tubaarkàl la boo xoolee li nga wax rek yee laa duñ ko woyal ku amul jom déedéet duñ ko wayal ku amul fulla duñ ko wayal baadoola duñ ko wayal baadoola boo déggee nu yuuxu ne der rek xamal ni kon koy wayal jar na ko dëgg la jàmbaar faq dëkk dëgg lañ koy waay ndeysaan way na ba tudd ci Sidiki Kaba sama papa ji maître Sidiki Kaba sunu papa sunu papa ñun ñëpp waaw waaw ndeysaan muy koo xam ne tubaarkàl la ndeysaan ngënee la nga ca moom baax a nga ca moom maman Khady Samake boo ko wayee yeelaa war nga koo way yeelaa barki yonent bi ndax mérito na way yeelaa mm, Sidiki Kaba mérito na lu raw wooy yeelaa ñii nga fekk leen biir Mauritanie Eh? wala nga fekk leen biir Fuuta. ba ñu lal rek ci suuf wala nga fekk leen biir Tamba. wala bundu. wala bundu. Fuuta ba nu tàllal ba lal. ba jeeg ji génn ba sol seen i cuub comme nii mu ko defee. ba mbattu yeeg. Ah, lekket yeeg ñoom seen wër leen lekket yi ndeysaan ba nu wër ko. ba am am na yeneen yor te koy def nii ci suuf. waaw dañ naan ku ku ku noonu. te mu mel na lekket te du lekket. gàmb la ay gàmb la ni may def. lu teg ko rek am ñoo xam ne bii na alima ah. ñoom lenn dong mooy seen yitte ci xew mooy njarmu mu sedd mi eh. aka noo man gan zirik bi zirik la ba ñu diigal ko def ko ci leket teg ko nii ñëpp tiim ko foo yuuxoo ba ne der ba sa yaram tàng wala nga xalam ba sa yaram tàng wala nga dëkk ba sa yaram tàng nga yóotu bopp noqu ca biir fii yëkkati téer ak moom xam nga dama di doomu shérif yaa ngi wax lu neex damaa xam njar mu sedd sama yaay yàlla ko yàlla xare àjjana dama di doomu waaw kon fi nga génn nooy na neex na. Mm. te nag kàllaama gi boo ko déggee rek xam ne directement li noonu li tukulóor pire la. Mm. Mm. per per maa la ko ñaan rek baal baalal ñu ko rek baalal ñu ko rek. kon noppi na waaw waaw Amar <laughs> Aïcha. sama xol seet ndax pël laa xam nga boo dee pël dégg lu mel nii. dëgg la xam nga noonu riiti la ma xam te. dëgg la. <laughs> ni nga ko nga xam ni bët particularité boobu senegal daf koo am macha allah. Mm-hmm. bambara bi woyee nga xam ni bambara. Mm-hmm. séeréer bi woyee nga xam ni séeréer. Mm-hmm. mais théâtre national dañu Sorano ñi fay daje ci ay xeet. bari na mais particularité bi lan la parce que nekkin ni foofu metti na wala méttiwul. waaye am ngeen ay bëgg-bëgg am ngeen fu ngeen bëgg a yegg am ngeen lu ngeen bëgg a def ndax jàppale bi doy na. ndax nekkin bi Omar ni nga téye micro bi baaxul dégguñu bu baax ci émetteur bi nga téye. waaw ay ayca. Oh. Abdourahmane bu nu beneen micro jege woon dina ma gënal torop question bi nekk na ma trop bi nga waxee waxu Sorano. Hmm. bi ma nekkee soraanoo léegi ça fait trois ans quatre mais soraanoo li ma fa gis soraanoo rek la nekk boo bëggee gis cosaan dëgg-dëgg demal Sorano bambara yàng fa alpulaar olof séeréer mandeng ñoom ñëpp. joolaa joolaa. xeet yëpp yaa ngi foofu te ku woy ñeneen ñi aw sa moroom dëgg la. te en plus Sorano dafa nekk nga nekk élève jàng dem Sorano mooy université culture. dëgg la. boo defee sa aar te jaaroo Sorano daa mel ne danga jàng ba am say diplôme sixième ba kii euh, troisième ay BFEM yooyu nga bàyyi jàng. dëgg la boo buggee nekk étudiante dangay dugg Sorano. loolu moo nekk soraanoo ma dem fa nag ñu am suñu DG bu baax te xam naa gis ngeen temps yi sax lu muy def ci Sorano bi def na ci lu rëy bëgg aar bi ma fekk tamit samay nawle. ndeysaan ñàkk ki ñaan tamit. kii ci la bokk Ibrahima Sissoko. rak baabu laay Sissoko baabu laay Sissoko rek ngeen xam ko. Eh, boy doyen ak Samba Seck ay ndaanaan daal ñoo fi nekk. xam nga kii sama mbokk. da di sama mbokk lakkat faakoli kumbaani faakoli daaba jami jankoni kiliya musa ni noya musa ni wanjaxa musa bu la ko moxolandi bu la moom fennandi sora dañuy démarrer rek ci deuxième son mm. ayca bismillah ñu ngi dem ci deuxième son bi nag di ko may suñu càmmiñ Aliou Abdoulaye Sow mm. tan arɗo amar joom gañam borom mouvement l' essentiel mo amadou ba halfini jeunesse fuuta fof jeunesse haalpulaar fof yo rewe muɗum ɗum noon min mbima sowma ko saabu koye mayale abdoulaye doura balde dg bu lonage dg bu lonage waaw kay aha bisimilla ndeysaan na waaye sama xol sedd na trop sekk ah. mi am naa ñu mbégte ak contentement wax dëgg yàlla dalal la ci suñu émission Rich diis Djizz nga yóbbu ñu cosaan yóbbu ñu fu neex muy yeelaa muy buumu gor nag ni ma ko waxee sànq duñ ko woyal baadoo la duñ ko woyal ku ko xamul waaye nga ñëw léegi ci sama cosaan dugg ci woyaale woyu bambara boo ko defee rek dag may daal di laal ndax man bambara pire la mu bambara ndingoleti mu jaaxa nga dingoleti ñëpp ba ma naan déndee kon boo duggee foofu sama xol day sedd ñu amoon nag mbégte wax dëgg yàlla ndeysaan gis nga lii lii xoolal sama yaram lii daal attanu ma ko daal eh, ku am nañu mbégte loolu dalal tey ñu bàyyi la rek tàggatoo ak ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ndeysaan waxtaan nañ trop wax dëgg yàlla ci euh, ñëw bi nga ñëw ma bàyyi nga tàggatoo ñi lay seetaan. waa mi euh, xalima. damay tàggatoo rek. Mhm. di naan fan si yëpp. Mhm. dama ñëwoon rek bëggal leen. Mhm. parce que nañ ma gis. te kontaan tamit ci émission bi. macha di gërëm tamit El Hadj Malick sama sëriñ. nekk ko gor. xamante nag xamante bu yàgg. ndeysaan depuis émission 2S Yela. nekk sama càmmeñ chaque jour mu woo mu umu ñëwal génn télé danga am place ci tele yi ndeysaan xam nga su ma ñëwee ba fii dama koy gërëm dëgg la ma gërëm la tamit parce que munoon na ma woo nga ne da nga bari ay rendez-vous dëgg la mais dama ñëw nga dalal ma dalal mbokk loolu mooy sama wareef dalal ma dalal boo xam ne ñun ñoo dëkk maa ngi nag nuyu suñu avocat comme ni ma koy waxee rek mënu mm. ma jeexal te waxuma waxam mooy mm. maître Sidiki Kaba ndeysaan ak maman sama Samake dëgg la ma dem ba guddi nuyu incha ci Me Sidiki Kaba ak Mama Khady sama kër ma koy nuyuwaale mu lu mu am ci Sénégal oriental moom kese moo ko am. dëgg la quatre ministère souveraineté. Eh. nekk justice étranger. armée armée. président Macky Sall nag yëkkati ko dugal ko l'intérieur. waaw waaw dëgg neexul macha allah koo koy maître Sidiki Kaba kabaa am mbégte kontaan nañ trop sama rakk ju baax ji ma daane Koli Sada Sambaali Siré. Hmm. su ma toogee fii duma ko fàtte moom tamit. dëgg la waaw dëgg la. am nañu mbégte trop dalal la suñu émission bi euh, ma leen di nuyu di leen ziyaara euh, kooku di rek sama yaay ji. Euh, maître Sidiki Kaba ak sama yaay ji mama Khady sama kay ñu seeti régie ñu jox ñu benn le temps rek sama yeneen invité yi daal di yéeg. waaw dañuy seeti régie ñu jox ñu benn clip bu ndaw rek ñu waxtaanee ko.